alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina walana muhammad wa alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen baal àq di leen baal àq ñu nuyu di siyaare bu baax ki nga xam ne moo fi nekkal Seexul Xadim Seex Moodu Muntaxa yàlla yàggal ko fi ca dolleeg wéram ba mu eggale ay mébétam ca ñu ànd ko moom di siyaare bu baax sëriñ Siidi Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad mi ñaan yàlla yàlla dolleeg wéram mu tam yàggal ko ci kanamu njaboot gi di siyaare njabootu Cheikh di siyaare Sëriñ Moodu Mbàkke mi nga xam ne moom itam bokk ci jabaru Cheikh Abdoul Ahad la di sunu xarit di sunu waree di sunu soppe di suñu lépp dam mbégte baax nag sànn kàddu yu néew rek ci sunu jàmbaar ji nga xam ne di sunu waajur di sunu sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke mi nga xam ne moom la ñuy wooye bâtisseur tabaxkat bi koo xam ne islaam du ko fàtte waaye yoon mu du ko fatte ci ay taxawaayam yu rafet ci diine ji waaye taxawaayam rafet ci yoonu Sëriñ Tuubaa yi jamono yu ne rek mu ñu fàttali boppam bu dara xewee rek ci taxawaay yu rafet yi ci na taxaw lu matoon lim doonul ñu ko amoon ku mënoon jël responsabilité jëm ñu ko amoon ab dogu liggéeyal Sëriñ ci dëkkam bii liggéeyal ko ci taalibe yi liggéey boo xam ne dafay ba faw ndax dëkk bii ginnaaw yàlla bi baree bari ab taxawaay moo tax mu mel ni moo fa njëkk taxawoo di ko ci nattal yokk ko bu baax a baax woote ci woote bu wér wax murid yi boobu murid fi ñëw waaye dañ daan wax fi di ñibbi waaye moo njëkk woote nag ne kuy ab taalibe bi na nga ba ab sa pujub nekk di taxaw ci Tuubaa loolu ci li yokku dëkk bi ci la bokk ginnaaw bi mu ko nattee ci alalam ba woon nag taalibe bi yëpp ne bëgg na ñëpp am fi ab pujub nekk loolu ci li yàkkal dëkk bi la waaye dëkk bi itam mu taxaw bu baax ba sécurité bi fi nag am ni moom moo ko njëkk indi ci dëkk bi Tuubaa da amutoon dara ci xeet yooyu moo ko njëkk taxawal loolu yëpp nag ci di dundal dëkk bi la digganteem ak Cheikh Abdou Khadir nag moo taxoon sax ngeen di ñëw fi ñoom ñaar rek ànd góor lañ àndoon àndu nawle lañ àndoon ay àndi xarit lañ àndoon seenu liggéey dañ koo boole woon moo tax Cheikh Abdoulaye dadaa wax ne digganteem ak Cheikh Abdoul Xaadir gopp la ak ëllër dañuy ànd def dara man ne da ngay di boole soog leen a mën a jëriñ soog soog leen soog laa mën jëriñ waaye boo leen tàqale ko rek doo ci jëriñu gopp kese moom dara waaye ëllër kese moom dara faaw nga boole ko ñoom ñaar nag noonu la meroon moo tax seenu ànd jombut ci beneen ànd bu mel noonu seen liggéey bépp dana koy ànd seen bi def ko kilifaam doyloo ko xaccu dara jaju dara mbir mu dikk mu ne mu delloo ko seen bi laat amul benn baat Cheikh Abdou tam dellawaat ko lépp moom itam ndax li ci ëpp solo mooy yoonu sëñ bi mooy lu ci diine mooy mu jël lépp teg ko ci loxoom lu jëm ci diine rek amu ci woon amu kaddu amu ci defar amu ci yàq loo ko wax mën a demoon seen loxo bi lépp rek koo bàyyee bàyyi bu moo ciy def di ci dindi loolu ak doy loola seereel na ko tam loo xam ne sëñ Abdoulaye moo ko seereel sëñ Abdou Xaadir perkaal bu weex tàll la loo ci seen mu ñuul rek da ko caa def te bokk foote mu dañ kon dañu sëkk ci seeral nit kon noonu la meloon ko lool féete ko fu ne nag kalaasam gi bokk bokk ko moom wéra wéra def rek jiital ca ko jiital lu fa ñëw itam mu jox ko cëb cër sëriñ bi itam noonu la moom jël léppam loo wax mooy doon sëñ Abdu mos na bëgg am dara mos na koo xam dara mos na ko wax benn kàddu mboolem li la nekk man benn yoon laa mas dégg mu wax kàddu te mooy bi nga xamee ne sëñ Abdu sëñ Abdu mi ngi diggante ak mars koy tëj mu war koo toj defaraat ko coow bari lool booba ci laa njëkk a dégg sëñ Abdu Xaadir wax kàddu ba lu bari mu woo marché bépp ci këram gi xamal leen ne dama bëgg ngeen dem Tuuba li Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wax ca kàddu yu rafet boole ko bànd ba ak waa marché yooyu ñu dem ci Saint-Blaise ko ma tontu ko ca bànd ba wax ñu solo kii dafa yebal ngir ñu tuub leen ngir ñu xamal leen ne sëñ bi moom bu baax leen bëggal ak yiw leen bëggal kon na dem leen ngeen tuubal ko ca top diglu ko ci leen sëñ bi daan waxe waxoon nag neneen ma leen def de li muy nuroo mooy di ko xiif lool nga toggal ko laax ba ñor ba mu noppi nga indi ko indil ko soow ma ba mu raxasu nga waaje ba ubbi bal ba nga war lekk nga jël laax ba ak soow ma tuur kooka du ma dégg dara lu xañ na ma lu bari waaye bu toogee tuuti nag ngeen def ko misi misi bu mag bànn la mu war teg ko ma xam ne ma ngi koy xañ loola jubloo woon ko sonal mu ne leen kon li ma doon def li ma teg ci marché bi itam loolu la mel ci mett na ci yéen waaye boo ma noppee da ngeen xam ne li ma leen li moo gën ci yéen nag tey leer na nañ ku xam ne ne marché bi dëkk boobu ba mu ko tëj ak bii sore na lool loolu mooy wax nit nit ku baax nit nitu yàlla kon loolu la tontoon bi loolu la tontoon loo marché kon moom diggante ak Sëñ Abdou Khadre noonu la meloon Sëñ Abdou Khadre daa am weer mukk boo xam ne demul ko Sëñ Abdou Lahad dana dana fa gont alxames sa ngoon nekk fa takkusaan waaye laa ma yendu jël waaye du am weer boo xam ne demu fa Sëñ Abdou Lahad tam ba muy sawar moom itam am weer boo xam ne ñur ko Sëñ Abdou lu muy def lu mu néew néew lu tut tuut dana ñëw ci kër gi waxtaan ak moom soog koo def du dégg du du dégg dara ci rajo yi ba ci nit ñi loo xam ne sëñ bi dana ko def lu muy defal dana ko leeral leer nañ bi ba sawrut tam la daa yónnee Modou muy baagante lu xaw def dara dana ko yëgal xam na ne moom du ci am position sax ndax moom sëñ bi lu sëñ bi wax rek loolu la wax fu mu jëm fa la jëm noonu la mel maa ngi fàttali koor gi masa toll fii ba ñuy séntu weer ndeysaan ndax booba ñuy ñuy séntu weer sëñ bi laal nañ dem sëñ bi ku ñëw mu yebale sëñ Abdou Khadre Mor moom dem dara baagante ndax bu dikkee itam sëñ moom mu nekk mooy lu rek lu leer naa ñu boo dikkee bu ne boo ne ko du sàngam neen gis nga ko trop sàngam man fi ma nan jàpp lan jàppoon rek ba deux heures ban am lu wér ñu soog a ne daañu um, wari waaye moom waaye sëñ moom daaw ci yoon daaw ci jël ben responsabilité ku dikkee mooy moo ko demal sëñ bi lu waxaan naa kon noon leen ànd woon àndub gor leen ànd woon àndub nawle leen ànd woon àndub xarit leen njabootam gi moom sëñ bi léppam sëñ bi da cee da tegoon bët jàpp ñu ne ak njabootam wala mu gën ñoo fonk ak njabootam sax ndax fonk fonk sëñ bi xaadir seen diggante moom néew ma dana amaat diggante mu ne waaye du yomb donc diggub ndëbbun seen doolante ngeen amul seen diggante ak cofeele ngeen amul seen diggante ci ñaar ñu mel noonu du yombati moom du yombati mukk seen Buxaari itam nangoo nangu leen ko lool lool nangu ko topp lool ñëpp ak njabootam mu fee lu leen xew mu ne demen seen bi rek lu mu wax ànd na ci lu def ànd na ca kon nag noonu leen ànde woon ànd bu rafet boo xam ne njaboot gépp xam nañ ko adduna sëpp xam nañ ko loolu nag kàddu yi ren ci yokk yokk nga ne daal ñoom ñoom ñaar moom benn lañ woon mosuñu réeroo ci dara ci ànd bi rek doonul ne doona dem ba doon mag mel noonu doon dafa yàgg dafa yàgg dañuy doon ay tut tàkk di jàng la meloon noonu seen bu xaalis nekk gere sëñ bi laa nekk tundoo di moog suñu sëñ bu ak Cheikh Saliou yaa foofu booba lan doon jaxasoo di ànd yaa ngi dégg xesa boobu ne sëñ bi laa ba muy nekk euh, kàbbu gay sëñ bi xaar di ko mas ji waaye loolu sëñ bi laa yónni su nekkoon ne demal sëñ bi xaar dama bëgg mu na ma seer am lu mu ko jox ak mu seeral ma sama taalibe sëñ bi laa moom ak taalibe rek la bëggoon doon taalibe Sëñ Tuubaa sëñ bi xaalis mu ngi koy seerloo appelé wu sëñ Tuubaa dara waaye mu ne ko naa bëgg mu seere ma loolu te loolu boobu yàgg na boobu ma nga kàbb ba mu demee sëñ bi ñëw sëñ bi ñëwal boppam mu fekk si ko am na kilifaam mu wax ko loolu sëñ bi seeral ko ko kon kooku seen diggante yàgg na sëñ bi nag moom moom moom moom kenn la kenn la ci ak pasteefam ak moo leen mag waaye xoolutoon loolu Sëñ Tuubaa doon xool ci ñoom day mel ne ku ci gis day mel ne mooy sab taalibe ngir moom ak taalibe rek ko ñoroon kon nag yal na ko yàlla fayal liggéeyal na liggéeyal na ci yoon bi liggéeyal ko ci njaboot gi ndax ñun bu ñu fi nekk njaboot gépp gépp gépp koo képp koo xam ne Sëñ Tuubaa moo doomi Sëñ Tuubaa moo la jur wala doomi seex nga seex yi nga xam ne Sëñ Tuubaa seexal dalaa warlu woon ne ci njabootam ku ci war a toll am samp kër mu sampal la kër ku ci am ngent mu def ngénte la ku ci war a dem màkk muy bu la màkk def daa am xam xam kër yëpp xam njaboot yëpp xam góor ñi xam jigéen ñi góor gu ci war a am soxna mu soxna ku ci war a jigéen ñi war a topp am borom kër mu toll borom kër jàpp nañ yow ni nga xam ne nii la yëre fa yoon daal ne la jàpp woon ne mooy yëf kër yëpp ba day li di nekk ci kër yi rafetlu waat moo di ko def nag loolu moom néew kenn wutu kenn wutu ko ci wet googu moom waaw kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax di leen li mu bëggoon rek mooy nekk taalibu Sëñ Tuubaa te loolu yàlla yàlla defal na ko bu baax a baax kon nag ñu ngi koy ñu ngi ñaan yàlla nga suñu borom dolli ci am leer dolli ci am ngërëm njaboot gi ñu fa bàyyi itam yàlla dëgëral leen mbay yoon mi nga xam ne xàll na ko ñoom ñëpp ñu jaar ca ndax moom da yàlla dimbali na ko ba ak njabootam moom teg na leen fan war a teg yar na leen dugalu leen doon ci mbiri boppam itam nag ndax moom daa jàpp ne lim yor Sëñ Tuubaa ko moom kon alal Sëñ Tuubaa moo tax da cee génn woon ak njabootam ñu bokk ko waa Sëñ Tuubaa yëpp tax na ñoom ñoom ñëpp nag tubaarkalla ñu ngi ci teg nañ leen ci yoon boo xam ne ginnaaw bi fi xam nañ ne yoon wu leen teg moo gën fuuf waaye nag yoon ñu ngi sant bu baax di ndokkeel ñoom ñëpp nag di bokk ak ñoom bis bi nga xam ne ci leen jëm bis muy bisu Cheikh Abdoulaye di bisu yoonu murid yëpp bisu bi yëpp naan yàlla li nga xam ne liggéeyal na ko yàlla liggéeyal ko Sëñ Tuubaa ci ci yoon wi liggéeyal ko islaam bis baa bu dikkee ñun ñëpp ñu dugg ci barke bis boo barkeem boobee ndax moom kon mooy ki xam ne sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne am naa ci moom yaakaar ba mu gënee loolu la waxoon yaakaar yooyu mu amoon nag tësut tax taxawu na taxawal na ko ci yoonam yi taxawal ko ci islam taxawal ko ci réew mi loo xam ne ñëpp ko gis ñëpp ko respecté ñu dul murit ñoo gën a respecté ndax ni doon tax ni doon taxawoo yoon murit noonu doon taxawa islam gépp kon nag bisam bu dikkee bisub senegal la waaye bisub jullit yëpp la bisu réew mépp la ñu ci ndokkeel jabaru Cheikh Abdou Ahad képp di ci mbokk ndokkeel jir bi yëpp ñaan yàlla ñu egg ci bismillahi rahmaani rahim ci la ci nekk ci aw yiw ak barke ñu dajeeg moom jërë ngeen jëf asalaamaaleykum